alhamdulilahi rabbil alamina sant yàlla bu baax julli ci yonent bi di nuyu assistance bi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp di ko président du comité national de gestion de mag suñu xarit Bira Sène di nuyu les vice présidents yi nga xam ne yëpp ñoo ñu ngi assisté fii nuyu les ménagères yi nga xam ne tey jii ñoom ñooy suñu relais au niveau du CNG di nuyu aussi suñu mbokku làmb yi fi teew ñëpp di les anciens di nuyu aussi la presse bi nga xam ne ñoo fi teew di nuyu aussi suñu naataangoo bi nga xam ne tey jii muy staff équipe bi Falaye ak équipe bi nga xam ne teew ñëpp di nuyu les deux ménagères waaye nag. gërëm tey bis bi bu amee dañ ci gërëm seen parce que bu xew te musta bu xewee am na lu ko waral donc le président Bira Sène bëgg nañ leen ñëpp ngeen tàcc ko fekk si ndax tam ñu nu neen bis bi boo amee xalaat mosul am ci histoire bi làmb bu mosal jeex dañuy convoqué ñaari nit le promoteur parce que dañuy remplir seen contrat bu ñu ñëwee ñu waxante wax tension mais bu ñëwee làmb bi damoon na niveau boo xam bu leneen amoon rek ñun ñëpp nañu am gàcce suñu toogaay bi wax. tax nag le président sant yàlla bu baax muy ñëw nag ci suma ñaari rakk yi combat bi y a pas de ku daan képp ko ci am jafe ñàkk deux vingt ñaar ñoo xam Ama Baldé parce que tey jàngalaat ngeen àdduna lu bare bare bare moo tax ñi si wax ñu bari xamuñu man dinaa joxe benn anecdote bi mu war a bëree daan Eumeu Sène ba pare dañu ànd le premier ministre boobu moo nekk le ministre des affaires étrangères muy organiser benn sommet ci affaire terrorisme ak affaire sécurité fële si kat ñu waxtaan ma nag Modou si guddi mu ne ma nañ dem ñu bett Amadou Ba ñu ñu ñu jàppale ko ci journée parce que boobu moo nekkoon le ministre des affaires étrangères le président devait assister tout le monde ci suba bi ñu ànd. comme sori te wuñu ay kër ma ñëw jël si ko ñu ànd ñu dem ci oto ñu dem maa moom parce que ma ne ko mais làmb ji gërëm ñaa ngi jël combat kan nga xalaat nga bëri boobu ñu koy proposé trois litres trois litres lañu ko du ma wax lu dul dëgg parce que sama naw la mu ne ma boobu amaa boobu ne ma amaa ba la laaj parce que amaa dafa war a xam ne ñëpp am loolu ñu ko doon proposé trois litres mu ne ma Ama Baldé laay jël parce que Ama Baldé ko a am lu ñëpp am on a parlé beaucoup si l'aspect social man ma wax ko li ñuy demee Ama Baldé ak Fakam ak ak kii Falaye Falaye Rock Énergie bu Fallou moo mosul nekk Rock mënul nekk ak kii Falaye ñun bi ñu génnee kii Falaye fa lañ daan àndal jour bi Jules Baldé di bëre Ousin Sow man maa bëre troisième ma dóor waa ji mu tribuché ma plaqué. Jules Baldé dóor Moussa Sow Moussa Sow tourné samp ñaari loxo yi mu topp ci ginnaaw di tas combat bi ndam si yàlla Moussa Dioum moo dem tëgg ko xeexam na ñu ñibbi si école Falaye Baldé le mardi pour entraîner or Falaye la ma mën yow yaay sama mën parce que mbër day gaaw mbër day jël fas defaral ma dama tàkkal seen liggéey defaral ma mu ne Jules Baldé li nga war a def li nga dóoree nii nga war bu ñu amoon lenn lu ñuy may te di jox chance de premier roi des arènes moo doxalee moom ñun la ko def donc loolu mooy chance bu baax di encouragé aussi suñu rak di wax tamit nga xam ne ñi ngi wax nit bu nekkee ci poids bu baax mooy le roi pare ay émission waaraate émission télé ci waxtaan bu solo bii la amee loolu damu namu te bu amee c'est grâce à nous nit bu nekkee ci poids bu baax ñun ñëpp dañ damay déglu nit ñi naan yenn waaraatee ne damaa dëddu àdduna mais ku àdduna dëgmalu mënoo ko dëdd mën loo tey jii toutes les poissons verts toutes les poissons verts tey bu ko neexoon fo bu ko neexoon nekk suñu noonu bu ñu woowee ba mu ñëw mu ne dama bëgg ñu évoluer suñu wàllu yemul doxalee ko nii kon kenn dootul ñaan kenn dootul sant am amal na beneen la ñu ngi lay sant di la gërëm. Ama Baldé ñu ngi lay félicité toi aussi. que bi chute bi amee chute ko mel ñun ay sport de combat bu ñu ne da ko préparé pendant quatre nga perte ko avec manière bi nga ko perte bu doon keneen dina sàll mais sàll coono wala nga ngor wala nga ngan nga jàmbaar wala nga noor wala nga ñuy woo ñu ànd ak yow ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu mag doon ay kilifa doon def la royoo la référence donc monsieur le président ñu ngi lay sant di allahumma salli ala sayyidina Muhammad ëppul doole ci bëri te mooy wane sare moom ko may tëj nit loo mën a am nag la nga xam ne mën nan laa boole moom toroxal waaye ba mu des yar kon monsieur le président du CNG l'homme qui mérite tout dans la lutte sénégalaise aujourd'hui c'est une journée très mémorable c'est vous la parole euh, Merci Lamine. damay wax deux minutes ci tubaab wax ci wolof. donc euh, le ministre des sports devait être là mais il a un empêchement de dernière minute il m'a demandé de le représenter voilà. donc je dis que euh, monsieur le président des écuries écoles de lutte messieurs les managers, messieurs les entraîneurs, messieurs de la presse, messieurs les lutteurs, messieurs les promoteurs, messieurs les membres du CNG de lutte. Euh, au nom du ministre des Sports, M. Labdiou, je voudrais tout d'abord manifester ma joie et ma satisfaction à l'occasion de cette cérémonie de décoration que nous voulons inscrire dans le cadre du mérite sportif de ce jour. Après le grand combat du 5 novembre qui a vu Mouroulou et Emma Baldé se comporter en véritable gentleman agreement, cette cérémonie de mérite est destinée à récompenser nos lutteurs qui se sont distingués par leur contribution au développement, au rayonnement de la lutte et de toutes les activités s'y rattachant. Le ministre des Sports saisit cette occasion pour adresser au CNG de lutte les sincères remerciements qu'il a, pu, qu'il a pu constater depuis son arrivée à, ses, à la tête de, son, département ministériel. À titre symbolique, le musicien a immortalisé le geste ô combien beau dans les cœurs et dans les esprits que les deux adversaires du jour ont bien voulu nous montrant ainsi à la face du monde que le sport de chez nous est aussi du fair play. Dès lors, il nous revient jërëjëf solennellement mbubb yi mu jox ama mooy jox ama mbubbam voilà kooku ñu koy mettre mu bëgg. àjjuma ji di ñëw nga sol ko. voilà Modou Lo Modou Lo Cheikh Cheikh Niang le président de de lutte et des écrits Cheikh Niang. wëlbati ko wëlbati ko. wëlbati ko Cheikh Cheikh wëlbati ko. non côté bële ah ok. Ah, c'est bon, c'est bon. Merci. Baye Ndiaye. S'il vous plaît. taxawal noonu. ñëwal fii. ñu Abdou Aziz. Euh, continue. on continue. léegi. léegi.

Voilà, avant vous serez monsieur Mamadou. Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout. Mais le tableau, s'il vous plaît. Manga. Manga, c'est Manga qui décore à Mambandé. C'est Manga qui décore à Mambandé. Le président décore Moudlo. Oui. Dans le président s'il vous plaît. Président, s'il vous plaît. Président, s'il vous plaît. ak yooyu di jàmm rek a nekk. di nga ménager yi ñu ngi leen di ànd ak ndax ñu ngi delloo xaalis les corruptions gis ngeen jàpp li mu neexee xam naa ni sama mbokku xarit yi sii yi tey moom dinañ nekk di tey lu neex tey tey sama rakku jarbaat yi yor sii yi di ngeen Isabel Sangu ci teewaay waaw côté de famille voilà côté de famille aca voilà président Manga 2 troisième vice-président chargé des lignes SAFRAC moo ko décoré Ama Baldé le président du CNG moo jox El Hadj Thiam Mbaye mu décoré jox Modou Lo tableau léegi nag ñu def photo de famille ñu def photo de voilà ana dosi tey def nañ lu rëy Amadou Amadou Mbaye yéen amateur yi rek ngeen tudd jàpp rek ngeen tudd defe naa président de nage bu kontaan ndax ménager bu benn duggul ñu tëdd mbër bi nuyu moo ne Adama Bopp moom itam maa ngi koy nuyu la séance est relevée